démarche bi nga xam ne moom la ñuy mooy démarche boo xam ni doo am cheminot bii ak cheminot bee tous les cheminots seront traités d'égale dignité di ñaaxaat liggéeykat yi di leen waxaat daal ni leen fas yéene nañ rek taxaw ci lépp luy nekk seen i njàmbat ak di gën a améliorer seen ay conditions d'existence et de travail di leen wax rek leen rek lan may mën a dooleele ah pendance ce temps mooy ñu moytandiku di def loo xam ni dafa may yóbbu ci posture di ñaan njekk ak di sukk di jébbalu loo di jéggalu donc loolu nag ñu jël delluwaat ñu waat ci xel bu baax ma ci ñaaxaat sama bopp di ci ñaaxaat liggéeykat yëpp di leen wax ni daal tànk ñoo ngi nekk ci li leen war du nu leen teg mukk lu dul naka sudul noonu loolu mën naa leen ko feddaliwaat di teyit yaakaar naa ni am na lu luñ ci jot a gis te bu soobee yàlla li ci kanam dina ñu jugé waat li nu xoolee ba mu yàqu parcours bi nu njëkk a mooy jugee Thiès ñëw Diourbel rek tama ni la saxaar gajoon na fa jaar depuis 2018 jox nañu idée ci loolu comment les populations sont sorties pour jubiler donc loolu wane na ni bala ngaa xam njëriñu lenn nga sàggan ba mu rëcc la donc loolu may wax ni képp kuy en emprise bi ñu wan ni ñu euh, euh, sommet la ni la dañ ko soxla pour defar raay bi nga libéré ko donc kuy ñaax ci loolu nag waxantuma la ak tamit ñu arrêté tamit acte de sabotage yi niy nemmeeku des fois nga xam ni day gën a sonalaat équipe yi nga xam ni ñooy liggéeyaat pour saxaar gi mën a kornewaat donc di waxaat sénégalais yëpp daal ni leen euh, saxaar gi moom pour sénégalais yëpp la